suñuy jaar-jaar daal dañu ko xaaritoon jar danaa ko am. ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. ñu ngi nuyu mbooloo mi di jiital ci nuyoo bi. suñu sëriñ suñu wasila suñu sang Mawlana Cheikh Moussa Touré di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér Cheikh Moussa Touré yàlla na fi yàgg lool te wér di ko ñaanal naal gi nga xam ne naal na ko ci diine te yitteem mooy matal ko lim ci yéene yépp suñu borom defal ko si loo xam ne foofu na ak njortam may ko wér may ko fekkee may ko kàttan ak ak saa lépp loo xam ne aju na ngir matal ni yéene googu leen waaye itam mboolem li nga xam ne mbokk taalibe yi yéene nañ ko ngir jëflante ko ak moom ak jaayante ak moom ci naal gi leen suñu borom mayuñ ci ndam ba suñu njort suñu itam tëliwut loolu yàlla ko suñu borom nangu di nuyu jotaay bi yépp amaana duñ ci mën a jaaraat ni ko bàyyi koo ko defee ndax dañuy jël suñu nuyoo rek sof ko ci nuyoowam ndax nuyoo na nuyoo bu matale si jotaay bi te it présenté na bis bi ci présentation bu matale kon duñ jël lu dul suñu nuyoo ak suñu ziar sof ko ci nuyoom ak ziaram su ko defee leneen li nga xam ne itam moo sabab jotaay bi mel na ni ci wax na ci ay bunt yu yaatu yoo xam ne daanaka motoon na ci ak leeral ndax kilifa gii leen toog te lii mu def fii leen bokk ci li nga xam ne daanaka bërëb bu mu dem rek lii leen moo ko yëkkati ngir feeñal fa lislaam ngir leeral fa wooteeg Cheikh Moussa de mel ni sañta bañ la mënu koo bañ a def ndax jamono day toll ci ak lëndëm lëndëm goo xam ne ci ak yàqu-yàqu goo xam ne ñu suñu borom kàttanal xamal leen ba noppi sas leen aw leeral mënuñoo toog faw ñu jub lu mu xat-xat dañuy jub lu mu metti metti dañuy jub lu mu laaj dañ ko ci def loolu nag yàlla dafa dogal mu bokk ci jëmm yooyu leen ndax dafa nettali gi ñuy nettali ci ni jamono musaana toll ba suñu borom bëggoon ko tuxal ci ak yàqu-yàqu ci ak mbon gi amon ci jamono suñu borom santoon malaaka yi ngir ñu tuxal ko laata malaake bi diko ko tuxal mu gis ab way ci ruq di jaamu yalla non te diko selal mu delu wat ci borom nako ah man de ma ngi doon waji a ndigal yi muy tuxal aduna ji nga ma wax ndax yàqu-yàqu ak mbon waaye dama seen ak góor gu beru wan ginnaaw léppi àddina beru ci rukkam di la sellal di la jaamu mu ne ko tàmbaleel ci moom njëkkoo faat ndax daa mel ne daa seetaan li la ko suñu borom jox ceeg mbaax ak yiw joxu ko ngir mu beru ci rukk di seetaan àddina mu mel ni mel daf koo jox ngir mu dugg ci jaam ñi saafoonteeg ñoom laayanteeg biir bala na ca moom mu tuxal ko ca ñoom bu ko deful daa li ñu naan daw ay responsabilité moo tax ba yàlla dafa ne ko jiitul ci moom bu dee rey njëkk koo rey sax moom te moonte li si neex yàlla la nekkoon di moo tax ñoom loolu lay jëkk sañu ñoo toog ndax dañoo am responsabilité leeral dañoo am responsabilité wane dañoo am responsabilité ak saa gindi jaam ñi ci lépp loo xam ne ayib la ñu ne seen xol yi te it nag sëriñam ba Cheikh Moussa Cissé ñame borom daaru yàlla yàlla yokk leeram te taas ñu si ak barkeem ci lii la la newoon dundam daanaka ci loolu la ko jeexal koo xam ne ba ko suñu boroom di yenkal xam-xam bi mu koy yëg dafa tëju si ab néeg beru juróom-ñaari at di xool li mu yëg ana yan pexe lay def ak yan ikma lay def ak saa ba jaam ñi yëg ko kon kooku amoon na yitte ci dimbali jaam ñi ña koy suñu borom boole woon ñu nangul ko di ay taalibe te suñu kilifa gi leen bokk ci dafa xëy na leen jël leen seen ak alal bu ngeen ko amee ngeen dem bu ngeen amul ngeen ma jox leen paas ngeen dem lii leen ñu def ci yéen ngeen def ko suñu ak saa bërëb yooyu leen maanaam missionoo leen nekk ay missionnaire di dox ci mission Cheikh Moussa mu dëppoog mission ak yàlla amul ute ndax ba ko waaji waa ku mel Aliou Ngouti ba mu ko nee sa yoon bi Cheikh Moussa dafa ne ko amuma yoon bi yoon ak sëñ ndax Cheikh la doon jàngale mu dem ba si biir sax ne ko sëñ Bamba sax amul yoon yoon bii yoon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam la mu dem ba ci biir sax ne ko yonent bi sax amul yoon yoon bii yoonu yàlla ixdina siraatal mustaqim islaam googu leen nag sa yonent bi sa sahaaba yi sa ulema yi ci borom xam-xam yi ba nii mu wàccee ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ jox suñu bopp soppeeku wut lenn islaam la woon islaam la te islaam lay dooni ba tey waaye léegi réeroo gi lënt lënt gi woote gi jotaay gi lu koy waral sànq damay xalaat sax ni day mel ni day jot waxtaan gi ñuy waxtaan ak jaam ñi ci bis yu ñu mel mu mel ni ñu apporté ci benn touche boo xam ne dox lay feeñal maanaam format bi ñu koy defee moom lañ koy mës defee ba tey moom lañu koy defee te am na ñoo xam ne mën nañ teew ci jotaay bi indaale ay lënt-lënt seen diine ñuy wax muy leer mbaa ñuy wax muy gën a lënt ñu jug ci bërëb bi ba dem te la lëntoon daa gën a lënt wala lëntoon leeru te amoon nañ sañ-sañ kat laaj ko bu leeree ñu wéy bu leeral ñu wéy di leeral ba keroog muy leer. damay xalaat ni waroon nañ teg micro fële jox ak mbokk taalibi ñooy déglu ndax diine gi ñuy wootee ak di ko waxtaane duut caagi ñi dañ koo gën a xam ñëpp duut caagi ñi dañoo gën a gëm yàlla ñëpp déedéet amaana yàllaa ñu baaxee rek ñu am lañ ca xam rek lañ ca xam nag as moom la ñuy fas yéene laay biir te rëy ñu ci am ci jotaay ba ka ca toog xam ca la gën lañu xam mbaa lu ko gën a rëy boo ci yokkee ñu jël boo ci laajee lu ñu xam ñu tontu lu ñu xamul ñu delloo ko suñu waa ji kon waroon na mën a demee noonu bi ndax sëñ bi dañuy misaal ne bari na li lënt ci diine waxtaankat yi ñoo ko gën a lëntal ñooy déglu itam bëri kiiraay lool wala boog waxtaankat yi teg waxtaan gi koo xam ne du ñu sañ a laaj te laaj nag dafa war ku xamul day laaj boo laajee. lan bi ma tax xam ñu xamal la ko ci jotaay ba bu la léré khairun bu la leerul ak saay ko ñu jox kenn ko gëna xam bu la nexé nga doylo xam ko bu la nexé nga bañ ko doylo waaye laaj ak tontu yey na ci waxtaan ak diina ndax fa lañ tollu ak saa su ko defé nak diine gog lañu day melni dañ ko xacc ci climat ci lislaam ci lixsaan mu mel ni keroog sax ba ñuy jàngale lii leen ikma bu bu yaatu feeñ na ca ndax yeneen yi dafa toog ak saxaaba yi jotaay jotaay ak diwaan jotaay waxtaan am ab góor bu jóge fële ñoo fekk yoon ci biir saxaaba yi laaj ko lan mooy liimaan yonent bi tontu ci juroom benn ponk yooyu le gëm yàlla gëm yonent bi gëm yonent yi gëm malaaka yi gëm téere yi gëm bés pénc nangu ndogal yi gëm ndogal yi mu tont ko luy lixsaan mu tont ko si juróom ponk yi luy lis la luy lixsaan mu tont ko si benn ponk bi an taxabatullah kan naa ta taraaxu fa nan taxaw fa nahu yaraaka mu xëy dem yonent ne saaba yi kii fii bàyyeekoo xàmme ngeen ko saaba yi ne ko déedéet loolu leen Seydina Jibril la moo wàccoon dañu xamal lan mooy seen diine lan mooy liimaan lan mooy lislaam lan mooy lixsaan moonte de bu ko naa Jibril di wàcc di ko laaj yonent bi mu koy tontu fekk na am na ñu gëm diine ña toogoon jotaay ak bi gëmoon nañ diine joxoon nañ seen bopp yonent bi jébbaloon nañ ci diine ñi ci islaam waa islaam googu nu mu def ak islaam googu leen ñu mel ni leen kon doon jàngal islaam googu nu mu def ak ngëm nu mu def ak yëngatu nu mu def ak ixsaan ndax ñetti yooyu rek la ngëm la yëngatu ak sellal waa ndax islaam foofu la tàmbale islaam tàmbalewul ak ngëm islaam tàmbalewul ci ak yëngatu islaam tàmbalewul ci ak sellal islaam ci xam la tàmbale fax lam lañu wax yonent bi xamal kon foofu la tàmbalee di taxrifoo nii foofu la tàmbalee di kon xam la yi lislaam tàmbale léegi nag xam-xam googu leen nga xam ne fa la tàmbalee mooy dox dox dox ba jur ngën gi wéral ko te sàmm ko mooy dox dox dox ba jur yëngatu yi waaye mooy dox ba jur sellal góog leen moo tax boo jiitalee yii leen mu jël gën a xam ne moo jiitu ak yàqu-yàqu lay jur moo tax da koy dégg ci waxtaankat yi ñu ne la waajaa ngay julli te bàyyiwut mooy yàlla kon julleegul jaa ngay woor te bàyyiwul kiñaan bàyyiwul mooy yàlla bàyyiwul siis bàyyiwul yenn jikko yi nga xam ne islaam da koo sib bëgg ko kon waa ji wooragul waa ji aj na ñaari yoon ñetti yoon te loo ko dénk ci ak xaalis mu luubal ko waa ji ajeegut léegi nag aj dëgg mbaa gëm dëgg mbaa julli dëgg mbaa yëngatu dëgg lan mooy cosaanam lu ko war a jur xam dëgg yonte yi saaba dañ koo tiim laaj ko ne ko ku bëgg ak àddinaam jag yonte ne ko na sàkku ji xam-xam ñu demaat diir ñëwaat laajaat ko alaaxira nag ku bëgg mu jat mu ne ko mu sàkku ci xam-xam ñu demaat diir laajaat ko ñaar yooyu leen muy àddina ak alaaxira ku bëgg mu jat lu muy def mu ne ko mu sàkku ci xam-xam ñetti laaj benn tontu waa ban xam-xam ana ban xam-xam la jaam di xam mu taxaw ko ci diineem taxaw ko ci àddinam taxaw ko ci alaaxiram ñoŋal àddinam ñoŋal alaaxiram bu mooyee xam ki ko sàkk sàkk ak jaamoom lu muy doon moo tax jaam xam yàlla kot moo koy jëriñ tey lii leen ak saa moo taxoon a jóg diine diine ndax xam yàlla dafa am jeexit ndax boo ne taxifoo ni yenn jànkat yi ne mooy xam ni ñuy jaamoo yàlla xam ni ngay jullee xam ni ngay woore ñoom noonu lañ koy tekkee kon am na ak njuumte ndax du waxut ni ñuy xamee yëngu yi waaye xam ki nga xam ne moo santaane yëngu yi dafa am solo léegi nag xam googu leen nga waa ji war koo xam dafa am ay jeexit yu war a def ci nit ki te loolu mooy cislaay bi loolay solo si du xam ko rek bu la laajee yàlla nga mën cee wax moo sàkk nangam moo sàkk nangam moo def nangam loolu taqalum la xam-xamu xale la bu xale bi nekkee ci daara ja ñaari at bu génnee boo ko laajee sa borom mu tekki la loolu leen su fekkee nag moom lay wëyee moom mag ji moom imaam bi nekk ci jaata gi nga laaj ko loolu leen mu tontu la la la xale bi nekk def benn at ci daara ja imaam bi xam-xamu xale la yor te xam-xam daa war a màgg xam yàlla nga ne mooy ki xam as mooy ki sàkk asamaan loolu ñëpp xam nañ ko mooy ki sàkk suuf ñoom ñëpp xam nañ ko mooy kiy rey mooy kiy dundal wér na kenn du ko weddi waaye ba tey waxagoo ko mu doon li muy def ngay wax rek waaw li ñuy def li mu sàkk moom ngay wax waxagoo ko moom kana moom kumu moom boo ko soxlaa foo koy fekk boo ko xamee luy doon jeexit bi te loolu mooy li am solo xam junni xam njëriñam a ko gën xam ne junni bu ñu la ko joxee lii junni la te xamoo njëriñam junni gi ñàkk koo xam lay tekki ngir ña xam yàlla nag ci ak jeexitam ci sellal kott la lay yóbbu maanaam ak njub ak deforme ak mbaax ak sell lii mooy ngir ñu xam daal lii mooy diine ba yàlla ba muy wàcce diine lii moo taxoon waaye lii kenn di dut mën ko fomm ku la ci jàppale moo waral yonent yi yonent yi wéy mu wax ko al ulama wa rasul anbiya sëriñ si teew seen yitte lii kott la war a doon képp koo xam ne woote na ci diine jaam ñi wuy la ci diine la taxoon a jug la taxoon woote bi mooy asta nga xamal jaam ñi kan mooy seen borom ñu jaamu yàlla nga jaamu yàlla ku dee yàlla fay lii nag moo tawat lii moo mel ni lu raaf lii moo mel ni lu dellu ginnaaw lii moo mel ni lu amut ba tax na boo ko laalee sax la ñu njëkk xalaat mooy xanaa waa daa sos <coughs> te fekk ne ab yoon bu ñuul la woon rek ak goudron bu ñu rëddoon mu nekk fi sàmmoo ko ngalaw li ci si ëpp suuf muy muuru sàmmoo ko ngalaw di ci ëpp suuf muy muuru sàmmoo ko ngalaw di ci ëpp suuf muy muuru ba suuf si muur goudron bi nga ya teel nga ya tombeek li nga xam ne mooy ba suuf si muuree goudron bi boo leen ne fii amoon na yoon bu jëm bërëb duñ ko gëm ndax gisuñu ku mel ne Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru ñëw jël yittee mooy feeñal yoon bi sa yu xeyé di balé suuf si di wacc goudron gi di feeñ muy xëy di balé suuf si di wacc goudron gi di feeñ ab diir ba goudron gi wo leer nañ di wone war yoon gam daan wone bo motu le waji da sos te sosul de da yeesal te nam ko defé non la ko serigne touba defé lil Mustafa nawitu mooy jaddidu sunnatuhu i wa ahmadu inni wa ahmadu ta ba muy yeesal sunna kat kam tek ci buntu bi yoon bi kam teg ci bunt bi boo xoolee lam laal ci sunna ci li nit ñi xam bëriwul wala amul maam Cheikh Rafaal mooy buntu yoonu murit te boo ne sunna moom Cheikh Rafaal lam ca laal ci li feeñ ci li ñu mën a àtteewu sunna ak lay sunna dañoo ute te Sëñ Tuubaa daa yeesal ci sunna teg ci bunt bi ko julliwul ku woorul ku asakawul waaw nañ xool ndax moom moo julliwul ndax ñun ñoo julliwul waaw nañ xool ndax Sëñ Tuubaa cuunewul cuune gu toll nii mu woote woote gu toll nii yeesal lu mel nii jël ci yoon bi ci ak ku manqué déedéet sa xalaata manqué rek mbaa nga manqué rek mbaa nga xamul na mbir ya demee rek moo tax waaye masta manqué moom maam Cheikh Fall luy julli ay waajur dañoo ñëw si Sëñ Tuubaa di ko àkk si seen doom bo xamne ne nekk ci kër ga di dem ci sëriñ la amene dem ci daara ja ba muy tàmbali julli diko ko ubbi bisimilahi rahmaani rahim la doon mu dem ci daara ja di ubbeeg julli alhamdullilah rabbil alamin xamna xawma safan nga xawma contraire bi wo julli ñi loolu len jaaxal len melni dañu soppi sen doom gi lam dal ubbee ci julli ñu ñëw di ko kalaame ak sëriñ bi serigne bi ne len julli defaroowut ci bisimilahi rahmaani yàq yàquwut ci alhamdulilahi rabbil alamin mu ne bisimilahi rahmaani rahim ku ñu ne ko yàlla alhamdulilahi rabbil alamin ku ñu toogoon di àkkis ne ko yàlla arrahmaani arrahimi ku ñu ne ko yàlla maaliki yawmi diini kumu ñu ne ko yàlla mu leen iyaaka naxbadu wa iyaaka nastaxinu foofu la jullit yàqoo foofu la jullit defaroo ndax dafa ne yow mii yow laay jaaw anamu kumu yow mii yow laay dimbaliku waaw kooku leen boo ko xamut ba di ko joxoñ jullee góob boo ko xamul nag foo jublu moom la waaw boo ko xamul laa wax ba di ko joxoñ julleegoo boo ko xamee foo jublu moom nga jàkkaar loolu kookoo ci julli bu sëggee mi ngi julli bu sëggut mi ngi julli julli laa wax ni tàmbaliwul ci jàkka ji julli tàmbaliwul ba si jaada bi ba ko lemmee génn jàkk ji ca la julli tàmbali ndax la nga doon def ci jàkka ji mbaa ba nga lajee si jaada bi ab contrat nga doon signé la de ak contrat boo doon ci ñeenteeg sa borom la ci ni nga war a jëflanteeg moom waaw boo génnee loo jàkkaarloog sa borom la jëflanteeg nu mu war a mel la nga wax ci julli gi moom lañ bëgg nga jëfee ko si dund gi su fekkee tëy tële ngaa jëfee la nga doon kàddu ci julli gi mooy kon ko moo tax xam-xam mooy defar. xam-xam mooy ñoŋal jaamu yàlla liñ foog mbir mi ak la mbir mi doon daa am ute te ute googu leen ña ko war a leeral ndax ute daa am moo tax waaj ñooy si ma si sa Cheikh Moussa si ñoome borom daaru nekk ci wetam Baye Fall yi nii Baye Fall di commencé di wax rek Cheikh Moussa ne ko te nga cee def nànk mu ne ko ah Baye Fall nga mu ne ko waaw mu ah kon doo julli mu ne ko duma sëlmal Baye Fall du ñàkk a julli de Baye Fall mooy ñàkk a sëlmal ndax boo sëlmalee foo jublu julli mooy jublu sa borom waaye léegi boo ko sëlmalee ba si jaay foo jublu julli mooy jokkoog sa borom boo daggee jokkoog ngay jokkoog sa borom koy jokkool ku gën moom. boo daggee jàkkaarloo bi muy iyaaka naa ko boo daggee dimbalikoo bi muy iyaaka na sax yi mu koy jàkkaarloo koy dimbalikoo moo waral xërëm gi di fa xërëm gi fa la tàmbalee di. kañuy jàkkaarloo lañ gisul kañuy koo lañ xamul moo tax ñu yaakaar reen yi mbaa sungi fi mbaa ndombo yi mbaa sooga ngi tuuroo si xànj gi dara du ci yàlla ñu ko gëm dëgg jëm yàlla ñuy wéttaliko ñu ko réeri dëgg leneen la ñuy wéttalikoo sëriñ si nag lii la ñëwoon ngir dimbali ñu ngir laayee ko biir képp ku sos tariixa paan paan bii nga fi fekk lënt lënt gii nga fi fekk nga jug ngir sol say jéego dugg ci waar bi dugg ci àll bi ngir akasaay ñu saafara lii leen moo tax Cheikh Moussa oto bi pann la wax oto bi pann oto ba muy wax oto bi pann xam-xam gii ñuy junj moom lay wax ndax nee na oto yëpp ngi dox mooy xeetu xam-xam yëpp mi ngi dox moom oto bi da koo misaalee xam-xam bi mun a xeet yépp a ngi dox waaye day dem kër sëriñ bi di fa sàkku alxuraan def fa ay diise ak jëlee alxuraan ci kër sëriñ bi yóbbu këram boo ko yittee woote alxuraan sax mën ngaa bañ a àgg sëriñ bi te yem ca moom ndax jor na ko waaye day jug këram dem sàkku ji menuisier dem ci atelier ba di manœuvre di menuisier di apprenti wu di apprenti ba xëy jël xam-xamu menuisier bi def ca xolam def ci ak cëram xëy ber daaram doon menuisier apprenti la woon démb waaye tey kuy apprenti moom mooy sa boos mooy sa chef naka noonu ci maçon gi naka noonu ci mbooleem seenti xam-xamu àddina yi waaw bu ñu xam yàlla du demee noonu xam-xam bii moom ci kër gi rek lañ koy njort kër gi rek lay ne du génn kër gi du xam-xam xam-xam de ndax nanguwuñ ko ci alquran nanguwuñ ko ci àddina nanguwuñ ko ci benn métier bëgg koo nangu ci li nga xam ne moo dox suñu diggante ak suñu borom wérut naxante la goo xam ne boo moytul kanam la jëm waaw naxante la goo xam ne boo moytul bu seetaan amee kanam la jëm ndax dafa am lu ci lalu loo xam ne bëgguñu mu jeex mu ak nguur sëriñ bi la bu fi sëriñ bi bàyyeekoo doomam la bu fi doom ji bàyyeekoo sëtam la noonu lay woyee di wéy di wéy mooy xam-xam yi moom du génn kër gi ñii dañuy sàkku loo xam ne duñ ko am ñii am loo xam ne fas duñ ko ñàkk te du jàll du dox mun ko ko am sax da doo ko ñàkk waaye na wuy na jóge kër gi tàbbi kër gi waaye ñii sëriñ ba dee ñii taalibe ba dee loolu la Cheikh Moussa wax ne wérut loolu lay ko utale ak sëriñ si loolu lay ko jotale ak sëriñ si loolay tax mook sëriñ si mu ñëw neexoo ndax day mel ni seen nguur lay màbbal te màbbalu ko ci yaama neex de ni yàlla doon màbbalee nguur arab ya nguurub yahud ya nguur képp koo xam ne dangaa woote lu uteeg tawxiid noonu la Cheikh Moussa di màbbale ak saa ku woote lu uteeg loolu ndax loolu ak suñu borom dénk yàlla bu la joxee laa ilaaha illallaa rek jox na la tawxiid mooy jaase gi dund yàlla da ko fi jëlee samp yàlla boo bëggee jël yàlla def ko askan mu la du askan ndax fu askan tàmbale lii ñuy wax yoonuk murit lii ñuy wax yoonuk tijaan lii ñuy wax yoonuk xaari si ay jëmm la tàmbale yoo xam ne yàllaa leen fi jiitu islaam leen fi jiitu Cheikh Abdou Xaadir si la yoonu xaadir tàmbale Cheikh Ahmed Tidiane si la yoonu Tidiane tàmbale Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ci la yoonu murid tàmbale waa laata Cheikh Ahmad Bamba laata Cheikh Abdou Khadir laata Cheikh Ahmed Tidiane ana islam amutoon nañ tontu amutoon xanaa waaw ba mu amee lu mu doonoon moo tax Cheikh Moussa dafa dimbali jamono si ñu ko xam du jëmmam ji moo tax du liñ doon ay taalibe moo tax waaye lii ñuy wax ku wax lu ku am lu gën a wér lii ñuy wax mën koo leeral bisimilah. moo tax wax naa ne moom mu ne oto bi daa paan te ñaare ko yëg ko waroon àgg si moom ne oto bi daa paan te ñaare képp kuy sëriñ ci Sénégal waroon nga koo àgg si ndax génnal ci ñaar ñoom ñen ndax lim na ñaar feeñal ko moom la ak Cheikh euh, Cheikh Ibrahima Niass li fi nekk ci sëriñ sépp mu ne ñaar ñoo ñoo yëpp oto bi paan na te oto bi paan na mooy ak xam yàlla bu mën cee xam la jaam àggale jaam mun na jël xolub jaam fóot ko ba mu set àggale ci yàlla mun na lii Sénégal lu muy yaatu yaatu yaatu lu kër sëriñ si du bëri lu muy fees fees fees ñaar da ko yëg waaye ñeneen lu ñu yëg ñeneen lu woote te booy xool sax day mel ni woote ndax fekkee yoonu Cheikh Abdou Khadre yoonu Cheikh Ahmed Tidiane ba fi Cheikh Ahmed Tidiane wootee lam ciy woote muy dox bu dugg Sénégal kenn lañ gis mu woote ci jël ay responsabilité woote jaam ñi xamal leen loo xam ne la Cheikh xamaloon na jiit ñi mu Cheikh Ibrahima Niass yoonu muridiyee ba sëñ Touba wootee min allaahi illallaahi ayna muridillaahi ba keroog ak saa mu wuy kenn lañ dégg ci biir këram mu woote la sëñ Touba woote woon ci authenticité mu Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom Daaru yeneen si nekk ku dut nekk rek woote sa maam woote mbaa sa moom dafa ne li ma yàlla yoor jote la ko ci xayru alamin ca màkk xayru alamin jote la ko ku mel ni Cheikh Ahmad mu yót ma ko fii ca daaru ma yëkkati ko ca kaw kon kooku woote na jël na ay responsabilité waree na nag Cheikh Sylla nee na ci yonent bi la bàyyee ci yàlla mu jaar ci yonent bi jaar Cheikh Ahmad Bamba ak ca ca moom nee na mu yëkkati ko te neen du ci taxaw du ci dellu ginnaaw men teg kanam la jëm ku mu neex kanam la jëm ku mu naqari kanam la jëm li woote da koo xam moo tax mu ne jarabu naa ko ci alquran muy moom ma jarabu ko ci hadis muy moom ma jarabu ko ci waxi góor yàlla yi muy moom ma gëm ni moom la waaye la mu wax ngir waree ni Akasa Kounta ak responsabilité am lépp jël na ko mooy sama loxo ba Touba ba Tiwaawan ba Makka ba Njaasaan ku ma woo ma jox ma wax la sa njëriñ ci loo dindi kon fu ne la tàllal loxoom loxoom googu leen nag mooy maqaamaam waxut yàllaa wax ndax siis bi saa yoo sa toogee lay kàddu ci bàyyeekoo ci jëmm jur yéen du kàddu bu waa ji kàddu suñu borom ndax siis bay wax defeewul Serigne Touba defeewul Cheikh Ahmed Tidiane defeewul ak sa kenn ci yonent yi kenn ci nitu diine yi waaye lañ yoroon la yor moo tax lañ doon wax kott lay wax lii leen nag laa wax ni moo waral woote bi moo tax ñu sóobu ca moom moom Cheikh Moussa nañuy teg moom nañuy jaayanteeg ñoom na ci xelu képp koo xam ne jur nga ci mbaam mbokk dal ñii la yoon bi mës a baaxu yoon bi ci tumuranke lañ tàmbale te ci tumuranke lay dellu àjjana ñeen la waaye tumuranke yi yoon bi ci génn kër ndey génn kër baay sàkku ji ko la tàmbale gis nga sëriñ si dañ leen di màndargale ay docteur taalibe yi ñu leen di misaalee ay malaat gis nga ci àddina rek nangu nañu malaat bi génn këram way juróom jël ko yëkkati dugal ci oto dem ba ci jëmm muy docteur ba dénk ko ko amaana sax bu docteur bi di consulter malade taalibe bi moo dégg mbaaxub yàlla dégg woote bi yàlla xool ak xolam xam ne akasaa lii ñuy wax ba mu làmbee xolam fekk ko ca mu sàkku ji ngir mu jóg ngir sàkku ji ko gis nga bu demee ca sëriñ bi day mel ni docteur day mel ni docteur bi taalibi ku euh, malade bi rek loolu rek lay misaal bi bu ne malade bi fii lay fanaan yëri yi ñoo koy fekki ku ko nam ma si njaboot bi yaay ñëw fekki si ko waaye moom du la fekki waa lii nangu nañ ko ci adina te pourtant de docteur bi lay wax loolu bi lay garantie lo amul fenn fum la garantie ne waji suma nopi ci mo gëna wëd ndax liko sama waji ji di waxee laaj ji sey ne ki la tabaxal hôpital ci biir hôpital ba tabax na ko morgue mort mooy waa ji mën naa jëm jëm jëm jéem ci mag malade bi ba sonu tële mu lay yëp leen duggal ci mort bi te monté de bu la laajee alal nga jox ko alal bu bari bu la laajee jot si hôpital bi ngay fanaan yow wuy jur ba soo moytul mbaa soxna si mbaa borom kër gi doo dellu ca kër si hôpital bi ngay fanaan lu mu laaj ci saafara boo koy jëndee dangay daw si pharmacie di ñëw ngir jox ko ndax lan na ngaa yaakaar ak wér te wér gi kat wérub jëmm la waaye léegi wérub ruux nag xanaa ruux du tawat te moom de jëmm de buñ naan dem na lay dem mooy li docteur bi ak li docteur bi tiim bokkut li docteur bi tiim doon jéem mu ngi nii docteur bi jàkkaaral waaye la dem moom anamu kooku nag la sëriñ Cheikh Rab di defar kooku lay faj kooku lay fóot kooku lay laabal kooku lay déjjati mboolem ayib yi ngir sell gi mu tàbbee ci jëmm ji mu delloog sell googu leen suñu borom gërëm waaw léegi su fekkee si saayir sii leen bu ne la na fanaan na fanaan bu ne la na dem ak dikk na dem ak dikk léegi bu ne la taalibi bi bu ne la laxasaay na kër sëriñ bi nga ne sëñ baa ngi exploité sama doom mu ne ma ngay fanaan kër sëñ bi nga ne ko ak saay kun tey téye na sama doom am na lu mu ko jox mu naan bu doom ji di dem ak dikk nga ne ko soppi ko doxalin léegi lu ñu wax rek nga ne kër sëriñ bi moom tam mënoon nga ko wax lu ñu wax rek nga ne hôpital ba ba soppi ba médecin bi téye xale bi ne xale bi du dellu loolu nga xool da nga exploité sama doom doo ko wax de fii da la leer ndax da ngay gis ni jëmum ji mi ngi détérioré mi ngi fièvre waye la fièvre te do ko gis te gëna fièvre jëmum ji moy xol ba te boko gisoon ya koy wut yobu sëriñ bi billahi ndax ak tawatam ma gën a doy waar fuuf tawatu jëmum ji la muy yàq gëna doy war fuuf la jëmum ji détérioré yow te monté de buy dem sax bok na ci ni koy galan ko waye mom na am ful la de gu doy gu mat dem sàkku ji rek te ñëw moom na am rek gis nga bu amee ba ñëw yow mi ko doon xeex yow mi ko doon dingat mbaa yow mi ko doon indi jafe-jafe boo moytul yaa koy njëkk nangul ndax mbaax rek lay indi ci kër gi sell rek lay indi ci kër gi kër sëriñ si dëgg dëgg dëgg boo fa demee defaru nga indi doo fi indi leneen cheikhu bi nag moo tax may wax ku mel ne jëmm ji toog moo tax may wax boo fi indee lu safaanoog sell boo fi indee lu safaanoog njub yow ah, yaa dese yaa manqué waaye njuba ne ci kër ga sell nekk ci kër ga defaru moo ne ci kër ga te buñ ne kër ga daara ja moo tax ñuy wax moo tax bëriwaan na lu nit di bañ ci diine di ko nangu ci àddina boo gisee ñu la waaja ma ngay sukkal sëriñ bi la muy defal sëriñ sax du ko defal bàyyam bu nuy bàyyi mën naa taxaw nuy ko waaye bu nuy sëriñ bi suq lay def raam bu la neexee nga dingat ko waye waro nga koo dingat bo amé soldat ci bir kër gi xol li muy defar ak chefam waro nga koo dingatee non bu gisé chef bu tëb lay def aj loxoy magal ko te di jëm na ni mom di bu nga ni nga gisé serigne bi la moom di jëm na ni sama dom di. jëm la yor ni mom te ak sa fu mu gisé takaliko ko mbaxana kala sukuram loolu nga ko xoolee noonu ci soldaar ko jëmm la ni moom bu ko dee woon dawal du taxaw bu ko woowee du dox day daw te lañ ko fay tàggatee luñ ko fa def da koy nangu bu duggee bàngu buñ ko saagaa du fayu buñ ko mbéjee du fayu buñ ko xañee lekk du ko kaas te fu si jógee lu muy taw ay weñ ñuy ci mbagg yi naan ko caporal weñ nga xam ñu saaga la nga bañ nga nangu ndax weñ ñu duma la nga nangu ndax weñ ñu lay mbéj di la toroxal nga nangu ndax ab caporal ab commandant ab colonel boo xam ne booy booy sangu da nga koy suppi boo dox ci mbedd mi sax xàmmiñ commandant amee caporal bi waaye ana xutbu yi ana labdaal yi ana commandant suñu borom yi ñooñu moom léegi ñoom lu ñu war a daj ci tool bi lu ñu war a daj ginnaaw commandant saar si mooy daj lu ne ngir dégg commandant léegi commandant ci baatin moom lu mu war a daj wala daa war a ñëw ñu may ko ko du demee noonu waajur bu si jaaxle rek da ngaa xamul lii nag mooy ak bayfaal lii nag mooy ak yoon lii nag lañ namm ak kenn ku si nekk bu la lëntee demal ak diir seetaan dama koy faral di wax naan bu doom génnee kër ndey ak kër baay jox ab diir ñëw ñëpp loxo bi indi ab ñëpp. bay tim ngëm gi rek nako la nga ngëb sanni sa xat yo xamoo li mu ngëb di wa teewon koon nga laj ko yo li nga ngëb lu mu waaye comme ngëb na rek dem na dikk bamuy dem jor dara mu ñew ngëb rek nga nako la ngeum nga sanni ko sa xat bu ñew bu ngeum bu la leeroon ne jamaana ngëb ah, ah ni lañ koy wéccé da xam nga valeur la jor ko la mu ngëb nag ba mu leer la ngeen waxtaan ci bamu mu leer la bu la yeyee boo mënee dem jébbalu dem ngëbi nga ngeen ngëbi boo mënta ngëbi nga maanu kon nag ab muqaddimat la woon rek ndax ñi ñëw amaana ñoo ñu gën a jote ay kàddu ñooñu ko gën a leer kon ñu ngi yees waat bu baax te tënk foofu leen kàddu yi. suñuy naa wax ni su ko xaritoon jar dana ko am. abonné seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.